asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki téléspectateurs yi noo ngi amaat mbégte toogaat ak yéen ci jataay bi nga xam ne da ngeen ko meen di ko bàyyi xel saayu yu jamono amee lëj-lëj te lëj-lëj ba jëm ci wàllu diine lislaam walla mu laal tarixatul muridiya Eh, mu di association Xudaamul Xadim eh, ñu toog tey jii ci kanam mm, fondateur bi di seriñ am satu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad waaye mu amee woon ko ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Saalihu yal na yàlla dolli yërmandeem ak tawfeexam waaye ñu toog ak président sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëriñ Cheikh Coro moom Cheikh Mahamadou Lamine Baara eh, feggoo ak sëriñ Modou Diop Diaw bi nekk ci wàllu sécurité bi xam ngeen ne bokk yi fan yi ñu génn coow bari woon na lool lu jëm ci wàllu rajo yi ak télévision yi ak site internet yi ci jënn jëmm joo xam ne yëkkati woon na fi ay kàddu jëme woon ko ci e, ñàkke woon wor ma lool way juru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu di wax sëriñ Moustapha Jaxate loolu ba mu amee xam ngeen ne xudaamul xadim defoon na déclaration ndax xodaam ci yu mel noonu rek lay yëkkatiku wala lu laal tarixa bi xam ngeen nit fan yii gis ngeen fi mbooloo mu bari mu jógoon jëm si ci jumaa ji loolu nag faw nit ñi laaj na ana xuddaam yooyu nag lañ fas yéene bàyyee kàddu gi sëriñ Bachiru Mbàkke mu leeral ñu yaar yëpp ba mu amee yan taxawaay la ci xodaam yëg defoon ak fan la ci toll fi mu ne su ko defee ñu bàyyee kàddu gi sëñ Mat Diop Diawlo mi nga xam ne moo ne ndawul xuddaam ci liggéey boobu. mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziare di leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu sunu kilifa sunu wëyu sunu lépp di xam Hamzatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke mi toog ak ñun. di ko ñaanal suñu borom gën ko kattanal dëgëral ko ba lépp loo xamee ni ab yéeneem la ci liggéey Cheikhul xaddi mu yàggale ko ci coobareem eh, di nuyu mboolem membre yi nga xamee ni itam ñoo coiffé li nga xamee ni mooy association Khoudamoul Khadim ñaari mbir yooyu nga xamee ni ba ci jiitu mooy sëriñ Moustapha Jaxate moom laa koy wax ndax tur wi laay màggal Mouhamadul Moustapha comme ni ma ko doon wax Eh, mu yëkkati woon ay kàddu yooyu jëme ko ci rasulillahi wala boog way juri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu bettoon ñu lool ndax fi mu jóge lañu ko foogutoon waaye eh, bi nga xamee ni loolu am na li nga xamee ni mooy taxawaayu xuddaam mooy sàmm lépp loo xamee ni mooy ndonal cheikhul xadim te bu nee ndonal cheikhul xadim nag moom mooy ndonal lislaam te dara jiitu ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax itam jokkoo nañu ak moom ci tuuru xuddaam waxtaan ak moom mu daal dem ci fi nga xamee ni mooy barab yi mu war a leerale fekk na sax lu ko jiitu bindoon na sax ab leetar ngir eh, di wax ni dafa juum di jéggulu waaye kenn ku ne gisaat na itam ci média yi ci télé yi mu leeral bu baax a baax ci li nga xamee ni dal na ko ci jéggulu loolu itam xuddaam am naa taxawaay yu am solo yum ci taxaw eh, eh, amoon na itam ay démarches itam yoo xamee ni taxawoon na ko ci waaye ba nga xamee ni nag mujj na daal di jégalu te ab jullit moom saa boo xamee ni rek def na jamac daal di delluwaat gannaaw kooku nag amuñu ci eh, benn atte lu dut rek eh, jim ko jéggal ta yàlla tax ndax kullu ibnu aadama xataa eh, ba tax na ñu seet foofu noonu ba bàyyi ko ci noonu waaye xaj na lool sax danañ ñëw ak sëñ bu job job bi xaj na dana ko gën a mën a leeral mooy ba ca des itam mooy mbooloo mi ngeen déggoon ci ginnaaw ñu ni dañuy tawaaf si ci ci jumaa ji ci xuddaa bi mu ko yëgee taxaw na ci ci jiital Serigne Modou Diop bi mi nga xam ne moom mooy yore sécurité bi taxaw ci taxawaayu am solo eh, ba mu fees si mboolem àdduna bépp ba tax na eh, ci loolu itam dox nañ ci ay dox yoo xamee ni eh, ci ña nga xamee ni jaaruñu ci woon aw yoon ak doon am benn violence bu ñu buggoon a def fexe nañ nag ba boole ni nag sécurité bi fexe ba police teg ci ñoom euh, loxo mbaa euh, gendarmerie jàpp leen waxtaan ak ñoom enquête leen comme nag am na ay doxin ak taxawaay yoo xam ne ci ñaari xew-xew yëpp taxaw nañ ca te ki nga xamee ni moom mooy njiital sécurité bi Serigne Modou Diop be kon nañ koy jox kàddu gi ngir mu gën a développé loolu leeral ko ba kenn ku nekk xam taxawaay xuddaam ci ñaari mbiir yi. Euh, ci gàttal rek. Euh, dafa am yónneen yoo xam ne sëriñ bi yónni woon na ko bi amee ay yëngu-yëngu yu am bi ci njëkk mooy ki nga xam ne mooy Moustapha Jaxate gannaaw bi mu yëkkatee ay kàddu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir di ca teg ay baat yu ñàkk ak yu ñàkki teggin sëriñ bi nag ñoom dañuy far di lijjanti seen mbir ci biir gannaaw boobu nag Cheikh Mouhamadul Basir jokkoo na ak Moustapha Jaxate gannaaw bi ñu amee numéro téléphone waxtaan ak moom ak commission bi nga xam ne mooy commission culturelle bi nga xam ne mooy commission daa commission bi bokk ci association Xudaamul Xadim jokkoo ak moom téléphone yàlla dogal mu tuuboon jéggalu bind ci site yëpp wax ne mi ngi jéggalu képp kuy wax asadon laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah jéggalu ñëpp yàlla dogal sëriñ bi xamalaat ko ne ko bind doo nga doyut da ngay fexe ba ni nga ko waxee woon ci site internet yi toog ci plateau yi nga defaat ko yàlla dogal mu ne ko nag ma may danaa def loolu. incha allahu rabbi yàlla dogal nag ci baaxu sëriñ bi ak euh, ndimbalam yàlla dogal mu dem ci ay sites yu bari ak ay jataay yu bari ci télé yi. ginnaaw boobu nag la ma Cheikh Mamadou Basir jox ndigal fekk porte woon nañ ko plainte ci procureur bii nekk Mbacké ngir ñu saytu ko joxoon taalibe yi nekkoon tamit ndakaaru ñoom ñu préparé wu ñu jéem koo doon porte plant foofu waaye yàlla dogal na nag ci bis bi nga xamee ne yóbbu nañ dossier bi gendarmerie ci brigade recherche bi. ñi woo ma sëriñ bi nag daal di gëstu ba xam ni lam doon wax tuub na ko ci télé yi tuub na ko ci site wax na ko ba mu leer naññi sëriñ bi nag ginnaaw bu loolu amee ab jullit nag bu tuubee jéggalu dañ koy jéggal jox ma ndigal nañ dem retirer plainte bi ci turu xuddaamul xadim ba loolu def nañ ko bi ci des mooy gannaaw bi ngeen xamee ni que am na am mbooloo moo xam ne dañoo daje woon génn ñenn ñi génne ci côté njenne dikk ba ci rond point bi nga xam ne mooy rond point poste bi ñu dajee tam woo naa Serigne Bassirou mi yëgal ko ko Serigne Bassirou jox ma ndigal ni ma naa woo commissaire bi yëgal ko ko te woo waa daayira mu xadimaatul xidma yëgal ko ko moom Serigne Bassirou mii noonu tam laa def dama woo daa daayira mu xadimaatul xidma gannaaw bi ma demee nuyoo ak ki nga xam ne mooy seen jiit laaj ko ndaje mi ñuy daje ak waxtu yi ñu koy daje ak lu tax ñu di ko daje mu xamal ma ni ma moom ñoom ñooy ndaw yi nga xam ne Serigne Touba da leen doon tudd ci xuqal bu kaaw te dañoo war a gindi nit ñi ëllëg ci la Serigne bi nag. ni ni ma dañuy dem ba ca jumaa yi Tuubaa ja def tawaaf juróom-ñaari yoon ci jumaa ji bi ma waxee loolu nag ma jokkoo ak Serigne Bassirou Serigne wax ma ne naa jokkoo ak daayira Muqaddimatul Xidma ci laa jot Serigne Fallou bi ma ko ko waxee Serigne Fallou Mbacké moom wax dëgg yàlla dajale ak waa daayira Muqaddimatul Xidma bi yépp ci niñ ko baaxoo defee ndax ku ne xam na ni ñoom sàmm war mooy jumaa ji ak sàmm jumaa ji te ñëpp bokk ko ñoom ci la taxaw ci la ñëpp wàccee muy waa sécurité beek ñi bokk ci xidma ñëpp kenn desul yàlla dogal ci boobu nag commissaire tamit boole ma ak ku ñu wax mataandoo ñu yor beneen oto boo xam ni oto bu ñuul la topp leen topp leen ba ñu jege jumaa ji ñu wàcc bi ñu wàccee tam ma wax leen ni leen na ñëpp taxaw ñu waxtaan ak ñoom ci la sëriñ Fallilu Mbàkke mi dokk ci bokk ci mu Muxaddamatul Xidma ak ñëpp ñëw taxaw sëriñ bi nuyoog moom bi mu nuyoog moom ni ko ah mboolo mi ngeen daje ba pare jëm si ci jumaa ji ak mbooloo mi ni mu bare ak contexte bi ñu toll lan ngeen jublu ci ndaje mi ak lan mooy sulla lan moo waral loolu illa ji ci la kooku waxaat ko ni ko kooku ñuy wax habibu habibu lañ koy wax habibu jaabo waaye habibu balde lañ ko gën a xamee balde ma nga dëkk Casamance ci liñ jot ci ay renseignement yàlla dogal nag mu ne ko mu wax ko lii ma leen wax rek duma ci kiyaar ndax sëriñ bi ak toogaay bi gàtt jataay bu yàgg bi mu waxaat ko loolu bi mu ko waxaatee loolu sëriñ bi ni ko lool nag du mën a nekk sëriñ Fallou Mbacke ne ko loolu nag du mën a nekk lii mën a nekk mooy jumaa ji ñëpp a ko bokk te xalifa général des mourides moo nu jox ndigal kon da ngeen di dëpp dellu ci xalifa général des mourides ndax fii moom barabu siyaar la loolu la ko sëriñ bi ne ko fii barabu siyaar la bu ngeen bëggee def tawaaf wala ngeen def daal da ngeen dem màkkatal mu karam foofal aj am ak tawaaf waaye fii moo am léegi nag sëriñ boobu ñuy wax Abibu Balde Abibu Balde ni ko kon may ma man ma dem siyaar sëriñ bi ni ko yow doo ngay dem ñun ñëpp loolu tam ñu ngi taxaw ñu ne ko kenn doo ngay dem léegi nag ci la dem moom doo nga am ñeneen ñeent wala juróom yu fippu ànd ak ñoom bi ñu fufoo ànd ak ñoom nag ni dañuy dugg ci jumaa ji far force dem nag dindi barrières yi jote ak ñoom jot cee dóor ñenn ci puus ñenn ci waa daayira mu xadimaatul xidma boobu yàlla dogal na loolu nag bi ñu jokk police ñi leen ciy remercier ci turu sëriñ bi euh, ci taxawaay bi ñu war a am gendarmerie itam taxawaay ba mu ci war a am mu def ko yàlla dogal ci la police ci la commissaire yabal oto ñu jàpp ci lu mat juróom-benn nit wala juróom muy seen kilifa ak ak àndoon ak sécurité bi ñu jokkoo ak sëriñ Modou Kara sëriñ bi ma woo ko sëriñ bi ni ma nañ jokkoo ak Cheikh dul Kara biñ jokkoo moom doomam it doomam jokkoo ak sëñ Modou Kara lam ma wax mooy sëriñ Modou Kara nee na yëgu leen santu leen ko defloowu leen ko te yebalu leen ci ci biir loolu nag sëñ bi nee na lépp lu ci war na ko yoon def lépp lu ci war na ko yoon def ci diggante boobu tam woowaat naa téléphone doomi sëñ Modou Kara ji jox ko sëñ Abdou Lahad Boussa mu santaat waa daayira Muxaddamaatul Xidma defaat loolu ci biir loolu nag laa génn naat ci jumaa ji gis ñu gaare benn huit bu weex buntu kër Serigne Abdou bi ñu gaaree buntu kër Serigne Abdou ma gis jëwriñ ji ne leen taal leen seen oto ngeen dëpp ñoom ñu taal seen oto dem yàlla dogal mbooloo ma ca des ñu toppaat leen ba ñu génn taalibe yépp topp leen ndax am lu leen naqari ba ñu génn commissaire yi daal di yabalaat ñu jël ña ca des bi ñu defee loolu nag foofu lañ ci jot a yem liñ ci defaat nag mooy ci guddi gi ci guddi gi gëstu ak waa daayira muxaddimaatul xidma ak waa daayira association xuddaamul xadim dem ba xam fi ñu dëkk ci fi ñu nekkoon ci njenne fi ñu doon woote doon dajaloo jokkoo nañ ak borom kër gi bitim réew la nekk doomam mi ngi fi ci guddi googu tamit génnee nañ leen ñu génn ña fa desoon génn dëkk bu sell bi di Touba kon nag loolu la ñu ci sëriñ bi doon doxloo ñu ngi sant sëriñ bi bu baax léegi nag li ci des moom ci sëriñ bi la dese ñun li ñu ci sëriñ bi yónni woon jaar ko ci sëriñ Amsa jaar ko ci sëriñ Bass ak xuddaamul ñun noppi nañ ci ñoo ngi toog di déglu sëriñ bi ñoom ñoo ci des li ci des rek mooy sëriñ bi nag lim ñu waxoon muy sëriñ Bassirou Thioro mii di président bi mooy lépp lu ñuy def ci Touba ci wàllu kaaraange ak wàllu warma ak wàllu sécurité nañ ko ànd ak police ak gendarmerie ñu ngi jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. daam ngeen xam ne ab kuréel la boo xamee dafa engagé wu ngir Cheikhul Khadim day ay jëmm yoo xamee ni dañoo jël seen bakkan jox ko Cheikhul Khadim te ñoom du ñu dañ di jox seen bakkan Cheikhul Khadim ba lépp loo xamee ni jëm na ci sëriñ bi wala mu jëm ci eh, diina lislaam bi sifa amma maanaam xuddaamul xaddim amul dara lum cee xaar day jóg ginnaaw ba mu amee ndigal ci sëriñ Muntaqa Mbakke waaye itam lu ko jiitu Cheikh Saalihu Mbakke day jóg itam taxaw ci lépp loo xamee ni jóg na ngir bëgg menacer loo xamee ni jëm na ci tariqa bi wala mu jëm ci lislaam kooku moom xuddaam day daal di jóg képp koo xamee ni daal mi ngi violé wala mu dox doxin woo xamee ni bokkut ak wi ñu sëriñ bi jàngal ah eh, des na jëfleenteeg moom benn nag ci xam-xam ah mbaay itam ci beneen anam gi ndax nit moom eh, ci xaj na day ñàkk xam nga leeralal ko mu xam bu boobaa itam eh, benn bu ci nekk am na nu ñuy jëflanteeg moom jëmmi xuddaam daal xuddaamu Cheikhul Xadim la seen bakkan joxe nañ ko Seexul Xadiim niñ ko joxe woon dem bëgg bët ki dem tey yii lañ ko ko gën a joxe lépp loo xamee ni jóg na jëm ci sëriñ bi comme ma koy répété waat incha allah dañuy daal di taxaw eh, eh, eh, ci fas yéene défendre loolu. ci sunna ju leer nañ lañ ko rek amuñu lenn lu ñuy làmbatoo fi di jégalu bu baax a baax lépp loo xamee ni ab jamono ji si kàddu waaleykum salaam wa rahmatullah. Askan wi TV c'est la chaîne la plus proche de